mbokk yi ak xarit yi dañuy ñëw ci sunu dernier point muy Bécaye mbay porte parole Njaasaan dafa yëkkati kàddu yu am solo Bécaye mbay moo doon jot li waaye ñu déglu bi président Macky Sall ñëwee Bécaye mbay yëkkatiwaat na ay kàddu ñu xool yan kàddu la je bi mu fi toogeeg léegi réew mi xam ngeen ne melul woon nii bi fi toogeeg léegi la réew mi ko ba mel nii kon ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal fan yal na yàlla yokk wér bàyyi sa si ma na ngeen noo baal bàyyi sa bon Bécaye Mbaye nee président biñ koy fal ku ne xam ne réew mi melutoon nii xam nga bële passé porte parole Ndiassane ni macha allah dafa wax wax joo xam ni dafa wër Sénégal wër àdduna Bécaye Mbaye doon jot li boobu dama ne sunu boroom mooy mën te yàlla mooy Karim parce que Bécaye dafa mës a toog benn mbër di yëkkati kàddu di wax ci réew mi ngir jàmm dellu si ci réew mi ni ñu war a def Bécaye na ko booy noppil tëj leen micro bi yàlla nattu Bécaye muy li ñu ubbil ko microom kilifa gi nettali xissa boo xamante ni bii ci ki nga xam ni moom lañuy wax imaam Shaafi la loo xam ni dundoon na ko ci ak tuuma wax leen ne leen tuuma amut njariñ loolu di li nga xam ni moom mooy sababu xissa boobu mu génne ko ci kanamu ministre de l'intérieur te loolu yëpp Bécaye mbay moo ko doon jottali président Macky Sall ñëw. Bécaye mbay daal di ne nañ waxante dëgg ku ne xam na ni réew mi melutoon nii waaw loolu moom dëgg la moom réew mi moom melutoon nii wax dëgg fa yàlla euh, peut-être nag ci angle bi muy waxee ak man angle bi may waxee peut-être mën na bañ mën nañu wuute waaye réew mi moom wax dëgg fa yàlla melutoon nii waaw melutoon nii nag dafa am yoo xam ni mooy yi ëpp solo yoo xamante ni bi tey euh, réew mi. loolu da ko ñàkk loo xamante ni bii problème la parce que jamono jiñ toll ni ni nga xamante ni bii tey noonu la mbirum politique bi demee sunu démocratie bi nga xamante ni bii ñoŋoon na ne ca kaw nga xam ni exemple lañ woon ci Afrique tey bu ñu demee ba tubaab yi di ko tegaat ci pénc mi di wax naan Sénégal mi nekkoon exemple kon nekkatu ko ci wàllu démocratie ak ay doxalin. tey fi mu toll ci yooyu la ñuy natt kon nattuñ ñu ci ay pont nattuñu ci ay autoroute nattuñu ci leneen liberté mu yoo xamante ni bii nit ñi gañe nañ ko tey am na journaliste yu bari yoo xamante ni bii mën nañoo gis li xew ci pénc mi te ñeme ko wane maanaam dañuy koy nëbb yooyu yëpp mu am yoo xamante ni bii gis nañ ko yenn doxalin yi nga xamante ni ñi nga xam ni ñoo nekk ci langue politique ñu dem bay jub ay élection mënuñoo xam ana kan ak kan mooy candidat dëgg la réew mi melutoon nii bégaay réew mi melutoon nii ci ay point yu baree baree bari tey buñ ko doon lim mën nañ fee bañ a jóg yu ci bari yoo xam ne réew mi melu ko woon je pense que parensaay kilifa dañ koy dimbali comme ni nga xam ni noonu la porte-parole Ndiassane defoon bi mu toogee ki nga xam ni mooy Antoine kàddu yi nga xam ni moom la yëkkati kàddu yu am solo la amal njariñ Antoine amal njariñ réew mi kàddu yu mel noonu boo yëkkati woon am na loo doon wax président loo xamante ni bi kàddu yooyu dana am solo lool parce que am nga sensu jàkkaarlook moom te yenn yi day dimbali koo xam ni am njiitum réew la donc loolu dafa am solo nit ñi bu ñu gisee nit di ko wax loo xam ni njariñu ñëpp la di bañ a wax rek loo xam ni seen njariñu bopp dong moom lañ cay xool parce que loolu lu am solo la il faut que nit ñi gën a mel ni gone yi parce que dama dégg Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al mu wax kàddu yu am solo keroog rek teg nañ ko bi muy wane ni ñi nga xamante ne réew mi des na tuuti mag ñi dootuñu mën a yar gone yi waaw bu mag ñi comprendre nag muy di gën parce que yoon wi nga xam ni moo moom la ñu xale yi di joxañ du benn yoon wurut yoonu jub ak jubal te mag ñi ñoo waroon a joxoñ xale yi yoonu jub ak jubal yoon wi ñu xale yi di joxoon mooy yoonu dëggu am ay principe dellu ci ngor yoon woowu mooy yoon wi ñu xale yi di joxoñ lu tax mag ñi mënuñu xool yoonu ndaw ñi jàpp naa ni réew mi ci defaroom ci ndaw ñi lay jaar parce que ndaw ñi am nañ yeneen gis-gis yu gën a kawe gis-gis yi nga xamante ni bii mooy yi mag ñi am parce que seen gis-gis romb na seen poos romb na sax seen dund ña ngay ca seeni dundi sët waaye ñii rombuñu seen gis-gis génnut cin li loolu mooy li nga xam ne mooy différence ndaw ñeek mag ñi ndax ndaw ñee yar mag ñi wala sunu borom ndax ndaw mag ñi ñoo yar ndaw ñi parce que mënoo yar nit ba noppi mu am yeneen jikko yi nga xamante ni bi tey moom lañu gis ci pénc bi jikko yu rafet yoo xamante ni bi ay xale am na nañ ko ay xale yu ndaw am yenn jikko yi am yenn gis-gis xooluñu seen bopp di xool seeni sët bu njëkk ba dañ doon wax ne doomu aadama yi ñun dañuy dund ngir am nit ku ñuul day dund ngir am doom doom ji yor ko ñu ne tubaab bi day liggéey ngir doomam mais xoolal xale yi xale yi dañuy xool ngir seeni doom ak seeni sët mais ñun mag ñi ba léegi ñi ngi toog di xool nu ñu def ba génn ci kon gis-gis yi bokkul loolu mooy problème mu Sénégal ci jamono jiñ toll nii ndaw ñi gis-gis bu sori la ñame donc jar nañoo respecté jar nañoo jox cër jar nañoo respecté ñu jara jox cër lañ defe naa ni mag mu dëggu ci pénc mi ndaw ñi ràññee nañ la taxam nañ la waaye mag muy jiixi jaaxa bu ne yaa ngi ci ay jafe-jafe te ndaw lu mel ni ñoom it di jiixi jaaxa yaa ngi ci ay jafe-jafe kon nañ leen fexe jub tey jubal te bàyyi lijjanti parce que lijjanti ndawa nee na kuy lijjanti yaa ngi lëjal nañ leen moytu lijjanti bi te fexe ñu génn ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ nekk.